شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رشد قال أخبرنا الليث بن شهاب قبله يا عمر ليس فيه حديث يحيى بن يحيى آخر حديث في الباب السابق
قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حسين عن صالح الحمداني عن الشعبي قال ورايت رجلا من اهل خراسان سال الشعبي فقال يا ابا عمرو ان من قبلنا من اهل خراسان يقولون كالرجل اذا اعتق امته ثم تزوجها وهو كالراجل بدلته فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أبدع حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له امل فغداها فاحسن غذاءها ثم ادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها وتزوجها وله اجران ثم قال الشعبي للخرساني خذ هذا الحديث من غير شيء فقد كان الرجل يرحم بما هذا الى المدينه
نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لو رجعوا الستائر هذه حتى تغطي الشمس gannaaw loolu ñu del si insha allah ànd ak al imam muslim ibn alhajjaj rahimahullah fi saxiixihi fi kitaab al iman حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بلنته حديث بي الإمام مسلم ابن الحجاج mi ngi ko jële ci cheyxam bu ñuy wax yaxya ibnu yaxya kooka jële ko ci cheyxam bu ñuy wax xusheym kooka jële ko ci saalex ibnu saalex ñi xaw a gën a am tuuti ak xóot ci gëstu gëstu xam-xamu xadiis ci ñuy wax xusheym li ñuy tudde tadlis daf koy def léeg-léeg kon mudallis la te fii nee na an saalix waaye ñu xam ne li ñuy tudde mudallis mooy ki nga xam ne léeg-léeg dane dana ne jële nañ ci diw te fekk du moom moo ko jële ci moom maanaam ci keneen la ko jële koo ko jële ko ci diw daa am na ñoo xam ne nag saa buñ nee jële nañ ci diw lim ci jublu ñoom mooy ci moom laa ko déggee maanaam keneen doxul ci diggante bi ñi nga xam ne suñ nee nag diw nee na léeg-léeg ñoo ko dégg léeg-léeg keneen a ko dégg ñooñu la seen mbir xaw a lëj tuuti moo tax ñu tudd leen mu dallis mu dallis mooy kuy lëndëmal ginnaaw day toog ba mu yàgg mu ne diw nee na nangam nangam nangam kooku mën na koo déggee ci moom mën na ko ñàkk a dégg ci ñoom am ci muhaddisoon yi ñoo xam ne buñ nee diw nee na rek ñoom ñoo ko déggee ca kooka Hushaym mii nag yàlla daa dogal mu bokk ci ñi nga xam ne dañ naan diw nee na ba noppi fekk du ñoom ñoo ko déggee ci moom maanaam léeg-léeg ñu déggee ko ci moom waaye léeg-léeg ñu déggee ko ci keneen koo ko déggee ko ci moom te xam ngeen ne boroom xam-xami addis yi dañuy aaji woo xam kookee mu ko déggee kan la ndax ñu mën a xam ndax ku wóor la am déet loolu la ñuy tudde mu dallis buxaari nag ak muslim dañoo sart ci seen téere bi ne képp ku ci nekk koo xam ne kuy lëndamal la di def lu mel noonu te fekk jëlee nañ ci yow ab xadis fekk na ñoom gëstul nañ seen bopp def nañ vérification ba mu wóor leen ne moom mii da koo déggee ci moom ñu door koo dugal ci téere bi kon tadliisu Husaym boobu maanaam lëndamal googu muy def léeg-léeg amul benn lor su fekkee nekk na ci saxiixul Buxaari wala saxiixu Muslim ndax ñoom bokk na ci seeni charte seen condition téere ne dañuy def vérification ba mu wóor leen cëng ne lii da koo déggee ci moom waaye bokkul ci li nga xam ne daf ne diw nee na ba noppi fekk jëlewu ko ci moom kon kooku amul benn lor an Saalih ibn Saalih alhamdani an Shaabi kon Saalih ibn Saalih moo ko jëlee ci sëriñam bu ñu wax Shaabi mu tudd Amir Amir moomu nee na qaala ra qaala raaytu rajulan min ahli xurasaan nee na damaa gis benn waay bu jógee xurasaan xurasaan am réew mu sori la ci jamono yooya ci koo xam ne da nga dëkk weti Baxdaad ndax fu sore sori la ca boor yi lenn ci ñoom mi ngi tàbbi ci Iran léegi lenn ci ñoom tàbbi ci diggante Afghanistan ak Pakistan ndax diggante bu yaatu la woon saala Shaabi maanaam Saalix ibnu Saalix moom moo gis waaje ñëw laaj Shaabi foofu nag aw waxin wu xaw doy waar a ngi fi ndax daf ne an Saalix ibnu Abi Saalix an Shaabi qaala qaala jooji Shaabi moomu ko waaye Saalix moo ko moom moo tax mu ne raaytu rajulan min ahli Xurasaan saala Shaabi Saalix ibnu Saalix nee na damaa gis jenn waay joo xam ne ci waa xurasaan waa xurasaan la bokk mu laaj ash-Sha'bi ne ko yaa aba amr kon loolu dàkkentelam la maanaam kunyaam la Sha'bi abu amr mooy kunyaam waaye moom ci boppam aamir la tudd mu ne ko inna man qibalana min ahli xurasaan maanaam nun daal sun waa dëkk muy waa xurasaan yaquluuna fi rajuli ñoom dañuy wax ci waajoo xam ne maanaam waajoo xam nit ki daal wala góor gi ida actaqa amatahu summa tazawajaha fa huwa karaakibi badanatahu nee na foofa waa xuraasaan ñoom li ñuy wax ci waajoo xam ne dafa am ab jaam jaam bu jigéen dem ba mu yàgg mu goreel ko wëlbati ko takk ko soxna maanaam takk ko jabar nee na ñoom dañ koo ñaawlu lool ba yemale ko ak koo xam ne dafay séyeg aw nagam maar reytaali maanaam ab aw aw nagam wala gëleemam dafay séyeg moom noonu lañ ko ñaawale kon waa Xurasaan noonu lañ doon ñaawale nit ki yor ab jaam ba mu yàgg mu goreel ko wëlbati ko takk ko mu doon jabaram mën na ko yor nag di ko def li ñu tudde tasarri muy jaamoo ko yor ko mu nekk ab taara ci këram ku mel noonu mën naa nekk waaye nag takk ko jabar moom lañ doon ñaawlu ñoom fa qaala shaabi nee na waa ji ñëw laaj ko ko shaabi daal di tontu mu ne xaddasani abu burda shaabi ne ko man de dégg naa ci abu burda abu burda moomu moom it amir la tudd amir ibnu abi muusa kon mook shaabi ñoo bokk aw tur mu ne ko xaddasani abu burdata bnu abi muusa an abihi kon abu burda jële na ci baayam bi tudd abu muusa maanaam kunyaam nekk abu muusa mooy abu muusa al ashari ab saxaabi bu màgg la turam mi ngi nekkoon abdullahi ibnu qays abdullahi ibnu qays mooy turam kunyaam mooy abu muusa al ashari kon doomam ji ñuy wax abu burda sa tudd amir moo jële ci baayam lan la jële ci moom anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qaal mu ne yonentu bi yàlla ba nee na salaasatun ñetta ngi ñoo xam ne yu taw na dees na leen jox ujurahum wala ajrahum seenub yool marratayni ñaari yoon maanaam ñetta ngi ñoo xam ne yàlla da leen di fay ñaari yoon rajulun min ahli alkitab waa joo xam ne daa bokk ci ahlul kitaab maanaam ci yahud ya la bokkoon wala nasraan ya dafa toppoon gëmoon yonent yàlla muusa wala mu gëm yonent yàlla isa amana gëm na bi nabiyihi ci ab yonentam maanaam ku bokkoon ci waa ahlul kitaab gëm ab yonentam wa adraka mu dab annabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu fekke jamono yonent ba wala mu fekke diine yonent ba sallallahu alayhi wa sallam fa amana mu gëm bihi ci moom wattabaahu mu topp ko wa saddaqahu mu dëggal ko fa lahu ajraani kooku am na ñaari yoon koo xam ne daa bokkoon ci ahlul kitaab topp ci ab yonentam ba yàlla yónni yonent bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu daal di bàyyi la mu nekkoon xam ne loola nasaxal nañ ko daal di gëm yonent bii kooku alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari yool lañ koy fay ndax kenn ku nekk xam na ne am na yoolub topp gëm toppoon ab yonentam lu jiitu ñuy nasaxal diineem biñ ko xasee nasaxal nag mu bàyyi ko ñëw topp si diine ji walaabal kooku yàlla da koy fay ñaari yool ñu ngëneel lu mag kooku loolu mu wax foofu moo tax al imam muslim indi xadis bi ci bunt bi mu ko indi muy ci buntub yonentug salallahu alayhi wa sallam ak lu aju ci ne képp koo xam ne dégg na ko da nga ko war a gëm mu teg ca ña ñan la ñan ñoo ñaareelub ñett ña mooy kan mu ne waa abdun akub jaam mamluukun buñ moom addaa koo xam ne joxe na xaq allahi taala xaqi sunu borom tabaraka wa taala wa xaqa sayidihi ak aqi ab sangam falahu ñeel na ko ajraani ñaari yool maanaam koo xam ne dafa doon jaamub nit mu joxe aqi boroomam ci xeetu jaamu yàlla yi ko war yépp ba noppi joxe aqi sangam ba ko moom ci xeetu liggéey yi mu ko war a liggéeyal yépp nee na kooku ëllëg ñaari yool lañ koy fay ndax xam ngeen ne ak njaam doonul loo xam ne lislaam moo ko fi indi waaye da ko fee fekk lu lislaam fekk lu ne nag am na ci yoo xam ne lislaam da koy dindi définitivement daa dina na dañ ndax loola jaaruwut mu di fi am am ci yoo xam ne lislaam xam na ne am na nu mu fi mën a nekk waaye bañ fee nekk moo gën mu di ko saafara ndànk-ndànk ba mu jeex loolu ak njaam ci la bokk parce que njaam li tax ministre te xëy rek yooyu rek ne par force dañuy goreel jaam yi mooy nit ñi dañ doon jël seen alal di ko ci def mu ne fekk nit ki jël alalam jënd dara alalam ju ju moom ju ko lew nga xëy xëy ne ko wàcc ko mu dem il faut mu am pexe muñ sàkk ba jaam yooyu jóge fa moo tax bunt yu bari yooyee l'islam ubbi ci xeetu goreel jaam mu ubbi ko ba nit ñi goreel seen jaam ba jaam yi jeex kon ñaareel ba kon mooy jaam boo xam ne dafa jaamu boroomam boole ko ak joxe aqi ki nga xam ne mooy ki ko sangoo ki nekk ab sangam ñetteel ba mu ne wa rajulun ak waa joo xam ne kaanat nekk na lahoo ñeel ko amatun ab jaam bu jigéen fa gaddaaha mu dundal ko fa axsana gidaaha mu rafetal ab dundam maanaam mu dundal ko dund bu baax summa addabaha gannaaw ba mu yar ko fa axsana adabaha mu rafetal ab yaram summa aataqaha gannaaw loola mu goreel ko wa tazawajaha mu takk ko mu nekk soxna kooku nee na fa lahu ñeel na ko ajraani ñaari yool kon fii mooy tontul laaj bi waaye li tax imam muslim indi xadis bi mooy masala bu njëkk ba nag mooy lu aju ci gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye li tax nag mu indi xadis bi mooy tontu li nga xam ne moom lañ laajoon Shaabi ne ko waa Xuraasaan ñoom dañoo gis ne goreel sab jaam ba noppi takk ko jabar kooku ayib la loolu moo tax mu andil ko xadis boobu won ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu ku ko def sax faf am nga ñaari yool summa qaala Shaabi lil Xuraasaani gannaaw bi al imam Shaabi mu wax ka jóge woon Xuraasaan ne ko xud hada al xadis jëlal xadis boobu yi kon xamu ko woon waa dëkkam sax xamuñu ko woon bi gayri cheyin te laajuma la ci dara maanaam jëlal xadis boobu te laajuma la ci dara defoo ci it nag benn effort faqad kaana nekkoon na rajulu nit yarxalu di laxas fii ma duuna haada ci xam-xam boo xam ne yées na bii ma la jox ilal madina di dem ba madina maanaam nit daana tukki tukki yu sori di wuti xam-xam bu yées bii ma la jox fekk diggante dëkk ak dëkk moo leen tax di jóg ma daan gis ku laxas weer ngir benn xadis dem jàngi ko nga xam ne weer ngay am ci yoon wi boo àggee ñi jàngal la xadis boobu nga ñibbiwaat ci weer door a àgg fa nga dëkk ngir benn xadis foofu la sàkku xam-xam tollu woon ci ñoom ci yooyu jamono kon xadis a ngoog boo xam ne li ko indi ci kitaabul iman mooy lim wax ne koo xam ne da ngaa bokk ci yahud ya wala nasaraan ya gëmoon yonent ba nga toppoon yonent bi ñëw fekk la fa woote nga gëm ko bàyyi sa diine ja nga nekkoon kooku day am ñaari yool ndax yool bu jëkk ba ak boobu ñaareel bi loolu nag yemut ci rek koo xam ne dafa doon ku doon dund ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bokk ci ahlul kitab waaye wax naa ne la même ba ci suñ jamonoy tey ku nekkoon ci diine jooja te ji léeragul woon ci sa bopp nga dem ba xam ko nag nekkati lii mooy diine lislaam nga bàyyi diine ji nga gëmoon ñëw ci diine ji te fekk diine jooju nekkoon diine ahlul kitab ñaari yool yooyu da nga koy am kon loolu ngëneel lu mag la bokk na ci ñiy jëriñoo ci xadis bi ne ndekete ab waa dëkk dëkk bu mat sëkk ndax xorasaan réew mu yaatu la woon أن أهل البلدة ربما قالوا قولا يخالف الشرع اجتهادا فيعذرون حتى تقوم عليهم الحجة ab dëkk bu mat sëkk wala am réew sax ngay wax mën nañoo dëppoo ci am lu ñuy wax maanaam benn fatwa wala masala boo xam ne ñoom ñëpp dafa nañ ne nii la ñu di ko wax ndekete du noona ba bis bu leen aw lay dikkalee maanaam bis bu sharia dikkee muy alquran wala sunna boo xam ne da leen di wax ne la ngeen façon kat wala la ngeen jàppoon du noona su boobaa ñu bàyyi ko ñu xam ne lañ doon wax ngir ñàkk xam-xam ñàkkoon a am dalil loola luñ leen di jéggal lay doon maanaam loolu yi ñu dëppoo woon ñoom waa Xorasaan di wax ne daganul ci nit ki mu goreel ab jaamam bu jigéen ba noppi takk ko soxna loola ñàkkoon a xam xadiis bi moo tax waaye nag la shakka na bi xurasaan yi boobu ñëwee sàkku si xam-xam ba xam xadis boobu bu delloo ci ab dëkkam bu leen ko waxee xalaat boobu ñu yoroon ci wàllu fiq dañ cay dellu gannaaw xam ne ci njuumte lañ nekkoon kon loolu lu am solo la beneen bi moo di fadilatu mumini ahlil kitab alladina daxalu lislaam ahlul kitab yi gëmoon Muusa wala Isa alayhim asalaatu wassalaam ba noppi wëlbati ku gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp diine lislaam ñooñu am nañ ngëneel ngëneelul ñaari yool loolu nag ka doon jaamu firam amu ko ah daanaka xaw nañoo mën a wax ne ki juddu ci lislaam it sax ngëneel lu toll noonu amu ko kon ndax ka ab yonent bi ku mu gëm ko topp ko ba mu yàgg mu gis ne nekkati loolu nasa xam nañ ko mu bàyyi ko ñëw topp ci lii am na ñaari yool ndax yool bi mu toppoon diine jañ nasa xalagul woon mooy jiñ abrogé gul woon mu toppoon ko ba nga xam ne ji folli nañ ko nag léegi mu wëlbatiku topp li walaabal kooku ngëneel lu mag a mag a mag la ndax suñu borom tabaraka wa taala kat mayut ñépp seeni xol nangoo judd ci dara yaru ci defe ne noonu la ba mu yàgg nga jekki-jekki gis ne ndekete du nii nga daal di mën a jekki-jekki bàyyi ko dem ca la ca des loolu ngëneel lu mag a mag la loo xam ne yombut yombut ñépp ñu bari luñ xas juddu ba yaru ca ba tàmm ko jeex na kenn mënatu leen caa dindi loo mën a wax lu mu mën a doon dañ lay wax ne li nga indi lu bees la su ko defee jàpp nañ ne lu bees kenn du ko jël su doon loolu kon diine lislaam kenn du ko jël ndax dafa ñëw fekk fa yeneen i diine waaye diine yooyu yàlla folli leen indi diine ji nga xam ne moo walaabal donte ju bees la it mu war ci ñépp ñi bàyyi diine jooju ñëw topp si diine lislaam mu am tomb bu sew nag bu ma ta bàyyi xel mu di man nit mën naa xelale maanaam wax ci xelam ne ah moom kat ginnaaw bu toppee ab yonentam topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñaari yool est ce que kon su toogee ci diineem noonu rek bañ a topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon du am benn yool maanaam su fekkee ne topp ñaari yonent yi moo tax mu am ñaari yool kon xanaa su toppul yonent bi te topp bële rek kon war naa mën a am benn yool déedéet mënta am benn yool ndax li ko waral mooy lam toppoon da doon walaabal ba am fu mu jeexee ba mu fa jeexee nag baaxatul ginnaaw baaxatul nag boo ko toppee sax bàkkaar nga ciy jële waaye duutoo ci am ab yool ba mu koy topp nag mu baaxoon mu baaxoon jamono yooyu la doon am ab yool waaye nag biñ nee fii la yem rek yool boobu moom dal nay arrêté mu war a jóge ci loolu dem ca la ca des door a mën a boole ñaari yool yooyee danañ ci jële it ngëneelul ne nekkate jaam bi nga xam ne dañ ko moom muy liggéey di son nit su fekkee ne ma ngay jaamu boroomam boole ca loola ab yool la koy indil moom itam daf koy dolli tuyaaba joo xam ne mën na koo ëppalee ka ñuy tudde sax gor danañ jële ci xadis bi it ne ndekete goreel ab jaam bu jigéen ba noppi takk ko soxna kooku rafetal jëme ci moom ñaari yoon la ndax rafetal na ko gis nga ni mu waxee yu rafet yi mu wax ci moom dundal ko rafetal ab dundam yar ko rafetal ab yaram ba noppi wëlbatiku goreel ko maanaam mu libéré ko mu nekk ku libre comme ñëpp ba noppi wëlbatiku takkaat ko soxna kooku day wane ak nawloo boo xam ne nawloo na ko ko wan ne ko benn lañ njaam nag dafa doonoon loo xam ne lu fi jaaroon la comme ni ma ko waxee bokkul ak nag njaam yi nga xam ne moom la ñuy wax ci suñ jamono nga xam ne jàpp nañ ne nit ñi dañ leen a séddale ay catégories yoo xam ne ñu ne jaam yaa nga fële leneen a nga fële leneen a nga fële leneen a nga fële loolu boo ko xoolee ab historique historique la boo xam ne histoire ni mu tëddee ci sunum réew moo séddale société bi ñu doon ñu mel noonu waaye benn atteb sharia boo xam ne dafa tegu ci loolu amu ci nit ñi ñoo ko séddalee seen bopp parce que bul fàtte mukk ne sunu réew yi du ay buur ñoo fi nekkoon di àtte buur yooyu dañoo yoroon seeni dag yor seeni nit ñu leen jege kati benn xeetu mbooloo bu nekk am na lu ñu doon liggéey boo ñëwee ci buur bu ma santoog ñi ko wër ñooñu mooy dag yi ñi ko jege nga xam ne bala ngaa agsi ci moom ci ñoom ngay jëkk a jaar bu doon sut jamono tey jii da nga daan ay ministre wala lu roog loolu kenn ku ne am lu mu yor nga xool mbooloo mi nag mi ci biir public bi fenn fu nekk am na ñoom dox dara ne leen lii yéen a ko yor comme que buur day xeex am na ñoo xam ne liggéey ay ngànnaay moo doon seen liggéey ay paakaak ay jaaseeg dem nañ ba àgg ci sax mën a defar ay fetal yooyu ñu daan tudde ay maqdoom xaw ma yéen ci yéen xam ngeen ko am déet yooyu yépp dañ ko daan defar kon ñooñu ñoo doon defar ngànnaay yi nit ñi daa ñooñu kat kon ñooy tëgg yi am ñoo xam ne bu mbooloo mi jógee xeex baa ngi bëgg a am ñoom ñoo yor seeni ndënd di tëgg maanaam di fàttali nit ñi seenu cosaan di leen bàkk pour seenu njàmbaar mën a yëngu su ko defee ñu ne ah ñooñu ko ñoom ñooy géwal yi am ay nit ñu nekk fële nga xam ne ñii dañ ne ñooy sëñ daam ak sëñ diw sàngam ak yu mel noonu nga xam ne defaral buur ay téere yu muy takk yu ko mën a aar ak yu fi fan yu mel noonu ñu ne ñooñu ñooy sëriñ si ci jamono yu buur kon ñooñu ko waroon kenn ku nekk am am ñoo xam ne ñoo koy ëwal gàllaaj googi su ko sëriñ ba defaree ba àggal su ko ëwee ba àggal takk ñu ne ñooñu ñooy wuude yi kon ñii ñoo waroon buur ci jamono yooyu ci société bi su ko defee buur nag di dem di xeexi nag di tooñ di dugg ci ab dëkk da nga daan tëdd ba guddi ñu jékki-jékki yéene ne ah fii kat ko fi fanaan di jaam loolu lañ daan wax agsi ci benn dëkk rek ñu ne fii daal ku fi fanaan tey ab jaam ngay doon fekk buur day jiital nit mu yéene ca kaw tëgg am dana ñëpp yëg ne ah kooku de am na lu muy yéene maanaam am na lu muy déclaré ñëpp ànd déglu mu ne leen ku fi fanaan ci dëkk bi ab jaam ngay doon nit ñi jóg war seen i fas daw am ñu fa des ndax seen fit ak seen jàmbaar ak ne génn seenu dëkk dara jaralu leen ko jaamaarloog buur xeex ak moom buur jàpp leen ñu ne ñoo ñaay jaam ya noonu kat la jaam nga doon amee ci jamono yooyu kon boo wëlbati ko xool généraliser ñooñu nga xam ne ñoo amoon ñëpp ñañ tudde tëgg baag wuude baag sëriñ baag ka nga xam ne moo jaamaarloo woon ak buur ba ñu jàpp ko mu doon jaam baag daanaka ña doon jaamee sax ñoom ñooy gor yi ndax ña ca des dañoo daw ñoom ñoo fa des ci loolu lañ xeex bañ jàpp leen ñu ne kon ñoom ñooy jaam yi ña daw koy wax dëgg yàlla ñooñu ñoo waroon doon jaam yi waaye ki fa des xeex défendre ab dëkkam défendre alalam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko défendre sa dëkk sa sa alal ba faatu ca loolu shahid nga maanaam martyr ngay nekk koo xam ne da ngaa défendre sa alal noona ku défendre sa bakkan noonu ku défendre sa jaboot noonu ba faatu ca martyr ngay nekk kon ki def loolu défendre ko bañ jàppee ko ci mu tabbi ci loxol buur ñu ne ab jaam la kooku boo ko seetluwaatee dëgg dëgg dëgg moo yor sa diiti gor ndax moo doon défendre boppam ñooñu nag ci lañ teggee métier yooyu yi nga xam ne moom la leen buur joro joxoon ñi yor ko ci lañ daa leen di wut nag rang social bi nga xam ne moom la société bi dund kenn ku ne kii ñu ne ran bu kawe la yor kii bu suufe kii bu féete nii kii bu féete nii ñi di ko dund ba suñ jooni tey jii ñu naan géwal baa nga ne tëgg baa nga ne géw nangam nga nangam nga fekk mooy ñu waroon buur di ko liggéeyal ci société yooyu nga xam ne mooy suñ société traditionnelle yu yàgg ya nga xam ne moo doon dox ci cosaan kon yooyu doonut loo xam ne lu l'islam ci boppam accepté la wala mu nangu ko nit ñi nag ñoo ko def mu doon seen aada bis bu ñu ko bëggee bàyyi mën nañ koo jékki-jékki bàyyil seen bopp wala ñu comprendre ko xam ko te defe naa lu ci bari sax mu ñu tane léegi donte teewul ay askan yu des ñu naan ay tëgg la ñoo ay nangam la ñoo yu mel noonu daanaka su fekkoon ne loolu noonu la demee kon ñiy liggéey ci menuisier métallique tey ñoom ñëpp ay tëgg lañ te taxul kenn jàpp ne ñooñu kii nga dem gis ñoo xam ne usine lañ nekk boo xam ne wàllu der lay liggéey te taxul ñu ne ñooñu ay uude lañ te même lu mel noonu rek moom lañ doon liggéey bu njëkk kon mbir mi doonut loo xam ne lu jaar moom réyal la réy gu toll noonu ndax lislaam moom réyalu ko kon loolu ñu bàyyi ko xel bi ci tegoo mar baabu nuzuli isa
قال المسلم رحمه الله باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا محمد بن روح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وآله وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد.
باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنت في وكنت وجه عيسى بن مريم يرد يا ربي وجه وغير من وجه سمو الجمع لأتى في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شريعة
bu wàccee ci lay àtte isa alayhi salaatu wasalaam kenn ku nekk xam na ne faatuwut maanaam deewul borom bi tabaraka wa taala daf ko yëkkati wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu reyuñu ko daajuñu ko comme niñ koy waxe ba rafaahu llahu ilayhi yàlla borom bi tabaraka wa taala daf ko yëkkati yóbbu ko maanaam bi nga xamee ne yahood ya dajaloo nañ wax seen wax ju ñaaw ja ba jóg ne dañ koy rey sunu borom tabaraka wa taala ci kattanam daf leen a tëralal ci seen kanam keneen ku mel ne moom yëkkati ko mu dem te ka bokkoon ci ñoom ña gëroon a xiir ci rey ko kenn ca ñoom la jël jox ko melokaanu masih alayhi salaam mu tëdd ñi koy rey mu naan leen mën a diw mënuñu koo gëm ndax suñ xoolee melokaanu kële lañ gis waaye bañ ko reyee ba noppi gisatuñ kañ àndaloon loola ci kéemaan yi nga xam ne sax ba ca la bokk waaye isa alayhi salaam fekk sunu borom tabaraka wa taala moom yëkkati na ko maanaam ka doon santaane rey ga sooke ko ba ñëpp àndandoo jóg ne nañ ko rey kooka la sunu borom wëlbati moom faf mu yor jëmmam ñu rey ko def ko lañ ko bëgg a def lépp borom bi yëkkati ab yonentam moom yóbbu yëkkati googu nag teewul day mas a wàcc nag ëllëg day wàcc ëllëg delsiwaat mu bokk ci xew-xew yi xew ci mujjug jamono su dikkee nag di atte ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy shariatu nabiyina muhammadin sallallahu alayhi moo tax mu ne baabu nuzuli isa buntub wàccug isa bni mariam xaakiman di atte bi shariati nabiyina ci sharia sunu yonent ba muhammadin sallallahu alayhi wa sallam الإمام مسلم من حدثنا قتيبة بن سعيد kon qutaybat ibnu said mooy sëriñam ci xadis boobu te sëriñam la ci xadis yu bari qaala xaddathana laythun maanaam layth mooy ibnu saad mu ne xaa maanaam kooku mooy jële ko ci boobu sanad demaat ci beneen wa xaddathana muhammad ibnu rumh kon xadis bi déggewaat na ko moom imam muslim ci beneen sëriñam bu ñuy wax muhammad ibnu rumh muhammad ibnu rumh moom mu ne axbarana layth kon ñoom ñaar ñëpp muy Qutaybatu ibnu Saïd ak Muhammad ibnu Rumh kii seen sëriñ ñoom ñaar ci sanad bii muy ceenu xadis bi moo di lays lays nag mën nga koo wax ci lu dul muy am alif ak laam bu la neexee mu am alif ak laam moo tax fële laysun la wax fii mu ne axbarana laysu an ibni shihabin mooy zuhri an ibni almusayab ñu jële ci said ibni almusayab أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سعيد بن المسيب جليتي أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرنت بي الله بنينا والذي نفسي بيده موي وات جي يرنت بي صلى الله عليه وآله وسلم دان واتي لو غنا بري مودي ماغي وات سي كيغا خامني سما بكان سي لخوم لا نيك لا يوشكن mooy jege na lool soreetul an yanzila muy wàcc fiikum ci yéen yéen ñi muy waxal waxut ak saxaaba yi rek fiikum jooji ci yéen maanaam yéen sama xeet ñi fi teew ak ñi ñëw ëllëg ibnu mariam maanaam jege na lool ibnu mariam wàcc ci yéen sallallahu alayhi wa sallam ibnu mariam mooy isa ibnu mariam foofu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ni mu saxee ci xadis bi ci mboolem riwaayaat yi moo di moom ci boppam julli na ci almasih ibnu mariam mooy isa wax ne salallahu alayhi wa sallam kon nga déggee ci ne ab yonent dana julli ci ab yonent da nga ci déggee it ne salallahu alayhi wa sallam ak julli gu wér la gu sax ci ne mënees na koo jullee ci ab yonent ndax ci làmmiñ yonent bi la jóge xakaman di atte muqsitan di ku maandu ku ñëw di atte nag bokkut ak ku ñëw di tashrii googu yoon dikkul pour tashrii maanaam dikkul ngir indi lu bees waaye dafa ñëw di atte ca lam fa fekk moo tax mu ne xakaman bu ñëwee day atte ci lim fi fekk moo tax al imaamu nawawi ci ak déggam mu ne xaakiman bi shariati nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam maanaam day ñëw di atte ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax waxul ne musharrian dikkul di indi sharia bu bees waaye dafa ñëw nekk xakaman ñaari baat yu wuute lañ dafa ñëw di atte ci lim fi fekk muqsitan di ku maandu aqsata boo ko jëfandikoo ci kàllaam ak arab mu nekk rubaai nga ne aqsata yuqsitu fa huwa muqsit kooku mooy maandu na waaye boo dindi woon alif googu képp kat nga ne qasata yaqsutu qastan kooku mooy jeng na mooy safaan ba nga xool mu wëlbatiku nekk safaan ba ci sababu alif gu soppiku rek kon moo tax mu ne muqsitan doon koo xam ne ku maandu la bu dikkee ya muy àtte bokk na ci yi muy tudd nee na fa yaksira salib nee na dafay damm croix bi sànni loolu lay jëkk àtte ndax ci lañu wékkoon pas-pas boo xam ne moom lañ ko askane woon wan ne bañ koy rey dañ koo def nii te fekk loola dara amu ci alxuraan weddi woon na ko bu yàgg wa ma qataluhu wa ma salabuhu bu dikkee la muy jëkk a def walakin shubbiha lahum ba mu dikkee la muy jëkk a def mooy damm croix ba nga xam ne moom lañ gënoon a gëm wa yaqtul al xinziira mu rey mbaam mi nga xam ne jàppoon nañ ne kii moom mooy lañ gën a fonk maanaam rey ko ba mu jeex ba duutu am ci kaw suuf waxul ne rey ko ñu lekk ko waaye rey ko mu jeex jóg fi rey googu lim ci wone mooy wone ne nañ leen waxoon ne xaraam na démb ca yoonu muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola mooy dëgg kon day dikk wéral loola wa yadaa al jizyata nee na mu daldi dindi li nga xam ne moom la ñu tudde jizya mooy impôt yi nga xam ne dañ leen daan laaj ahlul kitab xeetu impôt boobu ni mu daan demee mooy bu ñooñu jógee nga xam ne xeex dox na diggante jullit yi ak ñenn du tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digal jullit yi ne leen su ngeen àggee rek dóor leen ñu dee déedéet wax su ngeen àggee woo leen ci lislaam ndax jullit bi la ko tax a jóg mooy nit ñi doon ay jullit ba mucc suñ leen woo ci lislaam ñu dugg alhamdulillah kooku jàmm ne bey suñ nanguwut a dugg ci lislaam ñu laaj leen ndax da ngeen mën a fay impôt muy li ñu daan tudde galak galak galak mooy al jizya mooy tolloog impôt boo xam ne dañ koy jël ci ñoom at mu nekk ñu fay ko su fekkee nangu nañoo def loolu ñu bàyyi leen ñu dund ci seen jàmm ndax it laaj leen ko lu jaadu la ndax su fekkee réewum lislaam dafa taxaw dikk yor nit ñi di leen aar di leen defal seeni intérêt ku bokkul ci jullit yi war ngaa def participation ndax jullit yi ñoom dañuy joxe asaka lislaam moo leen ko teg nga xam ne farata la ci ñoom at mu nekk dañoo war a génne seen asaka joxe ko yow mi dutub jullit nga xam ne mënuñu laa laaj asaka te état bi mi ngi lay defal dara kon war naa am looy joxe loolu lañ doon tudde gis ya kon lu maandoo maandu la suñ lànkee yooyu yëpp nag ñu ne ah kon na xeex fa sës noonu la daan tëdde loolu mooy li ñu tudde jihaadu talab bu fekkee dañoo jóg imaam organiser jihaad ba ne noonu la tëdde kon bi isa alayhi salaatu wasalaam bu dellusee acte boobu da koy dindi ban lay indi moo di laajatul kenn gis ya dugg ci lislaam rek wala wala rey acte boobu lay indi kon li muy indi mooy gën a tar bu boobaa dikk woo rek ñu dugg ci lislaam suñ lànkee nga xeex ak ñoom boobu lay indi nee na wa yafiidu almaalu nee na alal dafay mbëbbali day bari jamono yooya xatta laa yaqbaluhu ahad ba kenn du ko nangu maanaam alal day baree baree bari ko loolu ñëw na ci xadis yu bari ci mujjug jamono ne alal dana bari ba boo ko jëloon di ko jox nit dalay wax jéggal ma ba beneen yoon du ko nangoo jël loolu moom buñ koy wax daanaka ci bopp yu baree bari da ci mën a dugg defe naa ne xaalis baa ngi nga ne muñal ma ba beneen loolu moom ci xam naa ne la koy waral leneen lay doon lu doy doy waar la koy waral nag bu boobaa ngëm gi mooy tax ndax su demee ba màndarga yowmal xiyaam yu mag yépp ñëw taxaw ci kanam nit ñi nag nga xam ne nit ka fa nekk lam tal mooy gaaw jaamu yàlla ba balaa dara xew kooku dem julli jeeg wooreek yu mel noonu moo moom lay tal waaye tal di laaj alal duutu ko tal te fekk na alal bari na ba kenn ku nekk am nga loola doy mën a dem jaamu ji yàlla moo tax ci beneen riwaaya ba daf ne wa xatta takuna sajdatu alwaxidatu xayran min addunia wa ma fiha nee na ba benn sujjóot ci yooyu jamono mooy gën àdduna ak la ci biiram kon boobaa nit ña mbir ma jege si na ba nga xamee ne nit ñi ànd nañu njàqare joo xam ne liñ tal kay mooy jàpp ak julli ak sujjóot ak woor ak liggéey liggéey bu am njariñ waaye di laaj ay alal su boobaa tëjë talatuñ ko moo tax mu ne summa yaqulu abu hurayra iqra'u in shi'tum nee na jàng leen bu leen soobee wa in min ahli alkitaabi illa la yuminanna bihi qabla mawtih nee na amul kenn ci ahlul kitaab lu dul ne dana ko gëm la yuminanna dana gëm bihi ci moom isa alayhi salaam wala ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu mooy li gën a dëgër qabla mawtihi lu jëkk ak faatoom moom isa alayhi salaam maanaam bu delsee ba jaamaarloog ñoom ne leen gis yi amatu fi gëm rek moo fi am képp ku fa doonoon ahlul kitaab bala nga faatu da nga gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu la aaya boobu di wax léegi nag fii am na ay mbir yu fi nekk danañ ci delsiwaat yan i leeral na naa ko waaye naa ko feddliwaat li mu wax ne fii kum jooju yàlla dana maanaam dana wàcc fii ci yéen isa ibnu mariama dana wàcc fii ci yéen yàlla dana ko wàccee dana ko yónniwaat mu ñëw lim ci jublu mooy fii haadihi l umma ci yoo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jubluwut fiikum jubluwut ci yéen saxaaba yi loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ñi muy waxal ñu teew lañ waaye nag wax ñi ci ñëm jëm gën naa yaatu ñooña yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ne xakaman lim ci jublu mooy ay yanzilu xaakiman bi hadihi sharia laa yanzilu bi risalatin mustaqilla du dikk andi ab beneen message boo xam ne bosom lay doon waaye day ñëw indi bii nga xam ne mooy fi mosoon a nekk muy yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu des nag fii am na ay mbir yu mat a bàyyi xel moo di bi mu dikkee damm croix bi loolu dëppoo na ak yoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la lislaam ma sa àtte moo di croix baaxul xinziir muy mbaam àll wala mbaam yooyu yi ñu xam mbaam xuux bi mu dikkee digle ne nañ ko rey loolu dëppoo na nañ ko fi jële dëppoo na ak leen islaam waxoon ndax lekk ko ci boppam dafa xaraam waaye nag bi mu dikkee fekk li nga xam ne moo doon jizya bi ñu doon jël ci nit ñi mu ne déedéet nag loolu amatu fi léegi moom dugg ci lislaam rek foofu moom soppi na la fa nekkoon ndax lislaam nee la tërale woon kon dikk na indi beneen tëral kooku nag muskila bu mag la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne bu ñëwee dafay atte ci sharia bi fi nekk kon loolu nan la mën a amee boroom xam-xam yi tontu nañ ci ku mel ne al imaamu nawawi dafa ne atte bi nga xam ne moo fi nekkoon muy suñ dikkee ci ñoo xam ne ahlul kitaab lañ nañ leen woo ci lislaam suñ duggee baax na suñ duggul ñu laaj leen jizya muy impôt suñ ko joxee baax na suñ ko joxewul ñu door a jëflanteeg ñoom atte boobu yi fi nekkoon nee na doonul atte boo xam ne bu continuer la ba kero yomal xiyaam di ñëw waaye ab atte la boo xam ne dafa am fu ñu ko yemale boo xam ne bu fa àggee foofu lay yem mooy bu isaa dikkee ndax kanu nettali woon ne lii atte bi nii la tëdde mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu nettaliwaat ne bu isaa ñëwee nii la koy tëre tërale kon kooku xam na ne atte bi fii la yem loolu wax la joo xam ne ju dëgër a dëgër dëgër la waaye danañ ci dolli nag lenn liñ ciy dolli moo di ñu xam ne mbirum jël impôt xeetu atte yooyu nga xam ne dafa tër ci biir lislaam nga xam ne xaakim muy kii atte mooy xool gis ne lii moo jaadu mu te defe ko nii bu lii jaadootul mu soppi ko defe nii loolu mooy lii dugg ci bunt bi ñuy tudde asiyaasatu sharciya dafa am lu ñuy tudde asiyaasa sharciya nga xam ne ci wàllu politique la ci loxo imaam la nekk loxo ki nga xam ne mooy alxaakim mooy atte ci lu mel noonu wax ne lii nii la bu ëllëgee mu gis ne loolu mën nañ ko soppi mën na ko soppi tëralaat tëralaat leneen loolu bokkul ak li nga xam ne mooy alfiqhu al islaami al thabit alladi la yataxayar maanaam ahkaamu sharia ci boppam nga xam ne yooyu du ñu soppiku dugg ci biir jaamu yàlla yi ak yu mel noonu loolu dafa doon lu sax loo xam ne amul ak soppiku goo xam ne da koy soppiku ci jamono ju mu mën a doon waaye yii nga xam ne dafa aju nag ay masaalix yuy dellu ci xeet wi ak yoo xam ne léeg-léeg masaalix yooyu dem ba maslaxa bi wàññiku maanaam njariñ yee ci nekkoon wàññiku ñu mën caa dugal beneen atte loolu la ñuy tudde siyaasa charia ndax siyaasa charia xaakim mën na cee soppi dara omar ibn alxataab radiallahu taala anhu boo gisee am am at moo xam ne daf ne ren atteb dagg loxo dañ koy yëkkati ba at ma jàll ba at ma jàll lu tax moo di ñàkk ga metti na ba jéggi dayo nit mën naa def loo xam ne du jikkoom mu ne kon ñii at kenn du ci dagg loxo loolu tekkiwul ne dafa dindi at bi yàlla waaye provisoirement daf koy arrêté ba lii jàll yëf ya delluwaat fa mu nekkoon loolu imaamul muslimin wala amirul muminin moo ko sañ kooku la ñu tudde siyaasa charia moo tax ñi ko comprendre du Omar ibn Xataab ak xilaafaam ak li ci nekk ci yu mel noonu yu bari tax nañu defe ne Omar da doon soppi dara ci sharia wala dafa indi sax ay biddaa léeg-léeg nga dégg ku koy wax fekk loolu ñàkk a xam bunt ba muy jëfe foofa la ñi xamut lool nag danañ dugg ci ay problèmes yu mag a mag a mag muy jaawale ak siyaasa charia ak li ñu tudde al fiqul islaami siyaasa charia bokk na ci ay mandargaam mooy doonul ab atte bu sax buy wéy xaakim bi mën naa joxe lii tey boo ëllëgee mu joxe leneen boo ëllëgee mu joxewaat leneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk xam na ne dem na ba jëmmi jamono mu ne almuslimuuna shurakaau fi salaasa nee na jullit yi ñoo bokk ñett yi maanaam bu ñu ko jaayante annaar walma walkala maanaam sawara ak ndox ak élément bi ñuy xonte aliment bi ñuy xonte seenu jur aliment bi ñuy xonte jur gi muy mboob meeg yu mel noonu ak sawar weeg ndox mi buñ ko jaayante loolu ab jamono la boo xam dafa dem ba état bi àgg ci attan yooyu nit ñi fi doon jaay ay ndox léegi ndox mi bëbbali na fu nekk teen yaa nga fa yëf yoo ni mel noonu mooy leen jaratul jaay léegi na kenn ku nekk fu waay mën a root na root bu dee sawara naka noonu problème ay almet ak ay taalukaay ak yooyu amatuñ ko ku bëgg a taal boo bëggee tibb sawara mën ngaa dem tibb sawara ci kër diw jarul mu di la ko jaay mboob mi xëy na taw amul woon wala yu mel noonu léegi àll bépp am ñax la kon jaratul kenn di ko jaay kon yu mel noonu dafa doon benn xukm boo xam ne dafa dugg ci biir siyaasa charia ñi xamul nag lu mel noonu nga xam ne ab atte la boo xam ne dañuy xool ay jamonoom waxtoom ak palaasam ak ye imaam kalkin ba ni lii mën naa mel nii dañuy jàpp ne fu nekk ak jamono ju nekk mën ngaa wéyal atte boobu fekk njuumte lay doon moo tax njuumte lu mag a mag a mag am ci lenn ci ay mbokk yoo xam ne ci lenn ci réewi Europe yi dañoo génne woon benn fatwa boo xam ne ci seen biir lañ ko doon defante ñu ne léegi nit ki sañ naa def ay pexe ba du fay courant jullit bi sañ naa def ay pexe ba du fay ndox lu tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na annaasu wala almuslimuna shurakaau fi salaas maanaam ñett ngi yoo xam ne jullit yi ñoo ko bokk muy ndox mu tudd ca ndox tudd ca sawara te sawara mooy courant ñu ne ko nit ki mën naa def pexe ba du fay fakkiiru courant kooku doon musiba mu rëy rëy moo xam ne su nit ki ifta ay fatwa bu mel noonu juum na ndax dafa jaawale al fiqhul islaami ak la ca aju ak li ñu tudde as siyaasa charia yi nga xam ne day dem ba état laaj loolu mu tërale ko noonu kon loolu lu ma tax xammee la mu doon bunt bu mag moo tax ma ne lu war a mën a nekk la lu war a mën a nekk la suñ waxoon ne li isa alayhi salaatu wasalaam def fii dafa dugg ci buntub siyaasa charia amoon nay jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu tëree sharia bi ak ni mu tëdde mooy lan moo di ñëw woote ci lislaam laaj jizya bu lànkee nag nga door a jëflanteeg moom bu nangoo nga bàyyi ko kii bi mu ñëwee xool situation ñii muy muy nasaraan yi ak li des ci jamono ni mu xate ak ci ne nit ñëpp dañoo war a dugg ci lislaam ndax ñu bañ a alko mu ne kii li gën mooy dindi atte bi def bii su boobaa kooku mën naa dugg ci buntub association charia mu ne léegi laajatul kenn impôt li mu wax mooy ñëw leen dugg ci lislaam wala ma xeex ak yéen su boobaa mën naa dugg ci buntu boobu ànd ak ne li al imam Nawawi wax boobu dañ ko ci dolli mu dëgëral ko ko waaye doonul loo xam ne day firi li weesu woon muy atte bi mën naa doon atte boo xam ne continué wul woon ba yowmal xiyaam waaye dafa continué woon ba kero isa alayhi salaatu wasalaam di ñëw mu doon bunt yoo xam ne yu aajee xàmmee la muy diggante asiyaasa charia ak li nga xam ne moo di alfiqhu alislami althabit alladi la yataxayar defe naa ne loolu mooy li ëpp solo ci luñ mën a wax ci ñaari xadis yooyu xanaa li mu wax fii rek ci ne xata takuna sajdatu alwaxidatu xayran min addunia wa ma fiha maanahu an annaasa taksuru raxbatuhum fi alsalati wa sairi taati li qisari amalihim bi qurbi alqiyama mooy li ma waxoon rek li tax dem ba benn sujjóot te liñ jublu ci sujjóot bi sax mooy ak julli ba ak julli gënal leen àdduna ak la ci biiram moo di jege goo xam ne yowmal xiyaam jege na ko ak ñàkk solo àdduna goo xam ne ñëpp jékki-jékki nañ xamandoo ko benn yoon su boobaa talatuñ àdduna jaamu yàlla moom lañu gën a tal am na lenn ci ay question yu fi rotoon ñu jël ko bala ñu ubbiwaat beneen bunt kii gannaaw ba mu defee ay ñaanam bi mu déggee xadis bi weesu bi ñu doon jàng bi doon wax ne bépp yahudi wala nasaraan yi bu dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te dikkoo dugg ci diine ji nee na ëllëg sa war a lay jëm mu ne ndax kon du jaadu ci képp koo xam ne war naa man dara ci daawa su fekkee dëkkandoo naag am na benn dëkkandoo boo xam ne nekkul ci diine lislaam mu fëgg seeni bunt wax ak ñoom woo leen ci lislaam mu koy lu jaadu la ndaxte ki nga xam ne yàlla baaxee na ko mu xam ba mën a jotli xam lan mooy xikma xam na ñuy jotle diini ji kooku saa boo xamee ne am na dëkkandoom wala kum dajeel wala kum bokkal fu muy liggéey war naa jëflanteeg moom ci xëcc ko ci diini ji ndax borom bi tabaraka wa taala baaxee ko mu dugg ci bañ koo duggee nag ci buntub ay werante xulóog li nga nekk baaxut ak yu mel noonu ndax xam ngeen ne dañuy dund ci situation boo xam ne laajut yu mel noonu waaye ci lenqente la aju ak waxante ak dialogue ak wane jikkoy lislaam surtout loolu ndax daawatu saamita muy woote bi nga xam ne daf ne cell werante wut kooku mooy woote boo xam ne comportement la ci xeetu jëflante ci sa maandute ci sa yéene doomu aadama yi yiw ci sa jëflante ñoom ci lu baax ci la nit ki wane kam dendal lislaam ba mu xam ne lii lu baax la au lieu ngay ñëw di ko woonaan ko kaay dugg si ci sama diine ji moom mooy jekki-jekki sax di la poser ay question te loolu yàlla mën na ko cee baaxe moom dugg ci diine ji te lislaam lu rafet la loo xam ne suñ ko wanee rek xol yépp a koy bëgg saa boo xamee ne gis nga xol buy foñ lislaam di ko daw xamal ne nit dalaa won loo xam ne lu wuuteeg lislaam la saa boo ko gisee rek loolu la nit a mbubboo lislaam ñëw won la loo xam ne bokkut ak lislaam mais lislaam dëgg-dëgg ku ko gis ku nekk te ànd ak sam xel da nga koy bëgg kon jullit yi jaadu na lool ci ñoom ñu delluwaat ci lislaam yor melokaani lislaam kii dafa laaj mu ne maam yi nga xam ne dañ fay jaaroon nga xam ne xam nañ turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lépp waaye nag ni ñuy dunde diine dëgg dëgg dëgg xamuñu ko woon loolu lan la ñuy wax ci ñoom li ñuy wax ci ñoom mooy képp koo xam ne def na kem kàttanam def na kem kàttanam ci diine ji la ko xam-xamam may ak man manam lam ko may mu jéem koo xam jéem a jëfe loola jëfe na ba fa mu mën a yem kooka borom bi tabaraka wa taala jéggal na ko la ca des waaye lam xamul mukk du ko ca mbugal borom bi nee na wa ma kunna muadibina xatta nabata rasula dun bugal kenn li feeg yëbalu ndaw lu ñëw leeralal la ba nga xam nga lànk bañ a jëf nag su boobaa mbugal doo la ñëw ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى koo xam ne da ngaa lànk bañ a topp yonent bi gannaaw boo xamee ne xam nga dëgg nga foofu loolu mooy tënk bu am solo bi gannaaw bi mu xamee dëgg ba àggal nag wëlbatiku jeng lànk bañ koo topp foofa la mbugal di ñëwee waaye lu mel ne mag ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon la nga fi fekk ci lislaam muy ay téere ngi nër nëri jàng jàng jàng ba xam la ca nekk guddeeg bëccëg nga ne ca di nër nëri di ko jëfe ba wuy ji sa borom te gisuloo leneen loola moom la nga réer la nga réere wala nga juum ca suñu borom tabaraka wa taala mën na la ko jéggal ki dajeeg jamono joo xam ne nag lépp ubbi ko na xam-xam baa nga fa téere yaa nga fa lépp loo bëgg a gëstu gëstu ko soo lànkee nag joxoo diine ji nag sa yitte dem ca sa àdduna wala ca sa yeneen ba xamoo looy jaamoo sa borom tabaraka wa taala kooku bu ëllëgee boo dajeeg sa borom da nga ñàkk aw lay kii dafay laaj mu ne salaire yi nga xam ne moom la ñuy fay fonctionnaire yi nekk ci état maanaam loolu mi ngi jóge ci taxe yi ñuy jële ci yi ñuy jële ci waa réew mi mu ne taxe yooyu nag am na ci ñoo xam ne sàngara la ñuy jaay di joxe seeni taxe am ñoo xam ne cigarette la ñuy jaay di joxe seeni taxe ak yeneen yëf yoo xam ne yu xaraam la kon daal lu dagan nga ca biir lu xaraam nga ca biir kon ndax dana dagan ci borom salaire bi lañ koy jox di ko ko fay mu lekk ko wala déet ok dana dagan ci moom mu lekk ko loola dana dagan ci moom ndax la muy liggéeyee moom ginnaaw lu dagan la te lañ koy fay ki ko koy fay ala kulli xaal moo ko moom loola moom lu dagan la faaw ñu xàmmee xaraam goo xam ne day wàlle maanaam yataadda ak xaraam goo xam ne la yataadda maanaam day yem fam yem dafa am yu xaraam yoo xam ne fu mu mën a jëm rek araam gi da koy topp waxoon naa leen mooy lu araam te fekk dafa araame ci ñaari ñaari buumi xaraam dafa caa takku mooy li araam diggante nit keeg boroomam ba noppi xaraam diggante nit keeg moroomam maanaam alal ju mel noonu kenn mënu caa def lenn maanaam dégg goo ñu ne am na benn état boo xam ne sàcc yi dañ leen di laaj impôt ñu ne ku sàccati ba am nangam na nga indi nangam loolu loolu amul parce que alal jooju ñëpp xam nañ ne moomoo ko ndax alali sàcc dafa araam sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg sa moroom ki ubbi nag palaasam di jaay sàngara ab kàccoor jóge fële ñëw jënd sàngara naan joxe xaalis kooku moomatul xaalis ba moom ala kulli xaal ki ko jaay sàngara seet lim ko jaay moom xaraam na ci moom waaye digganteem ak boroomam la waaye du digganteem ak moroomam moroomam mii ñëw jënd sàngara si moom dem naan dem kooku yoreelatu ko benn xaq loolu moo tax alal jooji moom mi ko moom mi ko moom dañ ko koy moomale foofu mu nekk waaye ni mu ko moomee nag moo dëgganut ci shariatul islam moo tax lu mu ca def duñ ko nangu bu ca jaamoo yàlla jaamu yàlla ga duñ ko nangu jaamu yàlla ga mën naa wér nag amaana loolu ñu bari buñ ko déggee mu jaaxal leen nan lay wéree ba noppi duñ ko nangu ok jaamu yàlla yu baree baree bari day wér ba noppi fekk nanguwuñ ko ndax day am lu nekk ca biir lu tee ñu nangu ko nit ki mën naa dem jàpp fee am jàppam mu sell ñëw julli julli gu rafet nga xam ne ki koy xool di ko àtte ci sharia day wax ne lii jaamu yàlla gu wér la waaye fekk jaamu yàlla googu nanguwuñ ko lu tax nanguwuñ ko mooy am lu ne ca biir waaja luy tee ñu nangu ak jaamu yàlla am yii tee ñi nangu jaamu yàlla ak nit yu bare bare bari la njistal benn la ca ndéggtal benn la ca ak yeneen yu demee noonu bu dee ci jëflante ci wàllu alal jaamu yàlla goo xam ne ci wàllu alal la it mu ñàkk a lew ci lii tee ñu nangu ko la bokk donte wér na ci misaal ci loolu mooy ki nga xam ne dajale na alal ju mel noonu ba noppi dem aji ci màkka maanaam ci jaay sàngara kenn du wax ne aj gi mu doon aj wérut ndax def na fere yi ñuy def yépp ànd ak nit ñu aj ba bépp borom xam-xam buñ ko àtteeloo boo ko toppee mu aj ba jeexal da nga naa lii moom aj gu wér la waaye ndax danañ ko nangu kenn du ko nangu ndax inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba sun borom dafa sell du nangu loo xam ne lu lewut la kon loolu moo tax borom xam-xam yi ñu indi benn qaida ñu ne la talaazuma bayna sixati wal qabul diggante wér ga ak ñi nangu ko yooyu jotewuñ dara mën naa wér ba noppi kenn du ko nangu kon nag ki nga xam ne da doon jaay yu mel noonu alal ja muy dajale kooku faawu état jël ca nag taxe yi nga xam ne moom la war a jël ndax alal ji moom lañ ko moomale te moo ko moom nam ko moomee nag ci sharia loola moom beneen affaire la mën naa bañ a dagan digganteem ak boroomam kon ñaari xeeti xaram yooyu ñoo am ci wàllu alal bu fekkee ne li araam digganteem ak boroomam la ak digganteem ak moroomam kooku moom delloo ko moroomam rek moo ci jaadu waaye amut leneen lu mu ca sañ a def sañu ca tabax jàkk sañu ca lu mu ca def lu ne da koy fay borom noonu la ko sharia di àtte ki nga xam ne daa dem ci jàkka ji ngir fekke ji ab dërs maanaam bi am njàng bu ñu fay jàngale comme lii nuy def nii bi mu ñëwee nag mu tardé ndax mën naa ñëw rek daal di toog bañ a julli ñaari rakkaa déedéet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ida daxala ahadukum al masjida fala yajlis xata yusalli rakaatain su kenn ci yéen duggee jàkka bu mu toog lu dul dafa julli ñaari rakkaa kon ñaari mbir moo am yoo xam ne mooy waral taxiyatul masjid maanaam bu fekkee ne dafa dugg ci jàkka kooku mooy benn charte beneen bi ci des mooy iradatul julus daa bëgg a toog su fekkee daa nar a toog faawu mu julli nag door a toog su fekkee daa bëgg a dugg ci jàkka ji nag taxaw fasul yéenee toog ba keroog ñu julli kooku mën naa jóg dugg ci jàkka ji taxaw kenn doona ko julli ñaari rakka par force waaye daal sañu ta dugg ci jàkka ba noppi toog te julliwul ñaari rakk ak waxtu wu mu mën a doon ak waxtu wu mu mën a doon moo tax foofu amul waxtu tere bokk na ci sabab yi nga xam ne tax na bu nit ki duggee ci jàkka ji rek ba noppi bëgg a toog na julli ñaari rakk door a toog su génnoon génn bu gàtt dellusiwaat it bu mu toog mukk te julliwul ñaari rakk noonu la ko sharia santaane te it loolu yiw la ci moom ndax ñaari rakkaay du caagi nii ab yan buñ la yan bu diis boo xam ne da nga naan lii moom dañ lay sanctionné faw nga julli ñaar raaka door déedéet dañ laa ubbil buntub nga mën a am tuyaaba lu mu gën a bari rek te sell incha allah tuyaaba yooyu day gën a bari kon boo ko doon def fukki yoon it tuyaaba day gën a bari rek te du la du la wàññi dara ñu joxe microphone bi tuuti ñu dégg wax naam am na ñetti waxtu yoo xam ne moom dañoo xaraamal ku fa julli mooy jamono yi jant bi di fenk diggante bu gàtt la boo xam ne boo ko doon xayma ëppul ñetti minute wala ñaar bi mu tolloo ci digg bopp bu juste nga xam ne jàddagu li ñu tudde zawal foofu dañ ko xaraamal bu fekkee jamono muy soo directement la ndax foofu li tax ñu tere ku fay julli moo di dafa am jaamukati jant bi ñoo xam ne waxtu woowu lañ koy jaam suy fenk su tolloo ci digg bopp su tolloo ci di sox ñu tere ñetti maanaam ñu fedd li tere ñetti waxtu yooyu borom xam-xam yi séddali ko ci ñaari xaaj ñenn ñi nee nañ ah ginnaaw daf ko tere woon waaye téewul nee na nit ki bu duggee ci jàkk bëgg a julli kon bëgg a toog faaw mu julli ñaari rakka ñu ne kon ñañ ko tere kooku bokku ci dañ ko cee génne loolu benn kuréelu borom xam-xam wax nañ ko am ñoo xam ne dañ ne déedéet loolu ak tere gu feddaliku la foofu du jaadu muy julli ñaari rakka waaye ginnaaw diggante bu gàtt la na taxaw tuuti loola weesu mu julli ñaari rakkaam door a toog te defe naa ne loolu mooy mooy li gën su boobaa li gën mooy na taxaw tuuti diggante boobu weesu mu julli ñaari rakka sujjóot sujjóotu tilaawa du bokkul ak julli sujjóotu tilaawa bokkul ak julli maanaam ki jàng alxuraan ba àgg ci bérébu sujjóot moom day sujjóot ala kulli xaal ndax sujjóot dafay am ay roko am ay sujjóot am am ay jataay am leneen kii nag sujjóot rekk la moo tax dañuy wax ne même borom xam-xam yi am na ci ñoo xam ne dañ ne sart ñu ci sax taxaara maanaam bu laabul woon bu jàppul woon sax waaye mi ngi jàng alxuraan ba àgg ci bérébu sujjóot na sujjóot am ñoo xam ne dañ ne sart ñu sax faf jublu xibla na far sujjóot rek pour mën a sujjóot waaye nag li gën a dëgër nag mooy jublu xibla moo gën wallahu alam
ñu wër la ñaari gis benn bi ci wàllu commerce la jëm li nga wax sànq ci masala wàllu ñuy jaay muy jaay matériel marchandise boo xam ne état bi day jàpp ne produit te lan muy suukar wala wala ndax loolu jublu commerçant bi mën a jaay la wala mu dem wuti ko fekk donte jege na frontière mais état bi jàpp ne produit ndax commerçant bi la ci biir réew mi mën na ko jaay bu ko jotee wala déet beneen bi dañ koy leer yërëm ci wàllu élevage ndax léeg-léeg ñu am problème nit ci wàllu jëflante jaay xar wala léeg-léeg nga gis ku la jaay mais da lay chargé ci bi mu la jaayee moom moom moom ëmb bi léegi day am maanaam da lay jaay xam ni mu tëb mais mu ne la bon yan dëppoo ci léeg-léeg ne mu ne xar bi ngay moom moom moom xar bi ngay moom mais bu juróom moom moom moom moom moom parce que loolu lañ doon lañ doon lañ doon leer loolu moom nañ tàmbalee ci boobu mujj boobu moo di li ñu tudde istisna ci am njaay bokk na ci yi nga xam ne dañ koo tere mooy bu mel noonu maanaam ëmb bi nga xam ne amagul wala juddoogul kooku mënee su koo jaayaale mënee su koo settee itam ne du ci bokk maanaam loolu ñaar yooyu benn duñ ko ci nangu mu des nag li nga xam ne ki nga xam ne dafa dem di jaay fraude xam nga bu dee da ngaa xool ci chariatul islam man nga rek ne ah jaay suukar moom dafa dagan na dara nekku ci waaye nag état dafa am ay tëriin yu muy tër yoo xam ne lam ci jublu mooy kaaraange réew mi ci boppam nga xam ne seen intérêt li ma doon tudde siyaasa charia léegi am na yoo xam ne jëmmi état ak ay expert am ñooy xool wàllu économie ba teg loo xam ne xam nañ ni lii donte ay individu mën nañ cee jëriñu xeet wi mën nañ cee lool te xaakim njiit sasam bi gën a rëy mooy aar mbooloo mi waaye du ci ay gën a aar diw sàngam wala diw sàngam kon su fekkee lor mën naa am ci forot boobu muy indi te tere nañ ko ko mu yëg ko bu wér a wér a wér li jaadu ci moom mooy bañ koo def intérêt boppam wër sa tax mu def loo xam ne day lor public bi na dem jaayi la nga xam ne lu dagan luñ terewut la su ko defee du lor du lor kenn donte am koom-koom ak wërsëgam mën naa ñëwee ci anam goo xam ne mooy gën a yeex gëm doon séentu waaye du te wërsëgam moom faaw nag mu ñëw te mu bañ a lor li nga xam ne mooy mbooloo mi kii dafa laaj mu ne jigéen joo xam ne dañ koo fase menn fase ndax dafay iddawu ci kër jëkkëram wala fu ko neex fu ne mën na faa iddawoo ànd ak ne mu ne jëkkëram dafa jël mboolem bagage yi nga xam ne moo nekkoon ca néeg ba néeg ba mu dëkkoon muy laajaale sax mu ne bagage yooyu ku ko moom idda ki nga xam ne dañ ko fase menn pase wala ñaari pase àggagul ci ñett kooku xaq la joo xam ne moo ko moom moom jigéen ji sañ naa toog ci kër jëkkëram jooji dëkk fa te du fay dara di fa lekk di fa naan di jëfandiku ca ndox ma nu mu ko neexe te du fay dara ba li ma jublu ci nu mu ko neexe mooy lu jaadu nag waaye waxuñu ubbi robinet yi bàyyi muy xelle rek di dem noonu waxuñu ndax léeg-léeg nit ki mer ne bala maa dem danaa yàq yëf yi loolu taxul ñuy wax am na waajoo xam ne nee na dafa gis ci Italie góor goo xam ne danaan def su jekkee ba waxtu ngoon jot day woo sénégalais yeeg guinéen yeeg africains yi ñiy ñëw mu di leen may ñuy téléphoné ci ci seeni réew te duñ fay dara ndekete góor gi taaw bi dafa dem ba mu yàgg mu mu mu déclaré ne góor gi mag la léegi dañ koo bëgg a dugal ci kër yooyu ñuy dugal mag ña su ko defee alalam ji mu fàggu woon yépp gone yi ñëw jël ko bi mu yëgee loolu nag mu nekk ci di ko yàq maanaam lu mu man rek parce que yéene yàq mu def ku bëgg a téléphoné lu ma ne kaay téléphoné ku ko romb mu may la dara ku loolu def léeg-léeg yu mel noonu dafay am xam nga ki nga fase itam mu toog ci kër gi mu wóor ko ne day dem bu ragalut yàlla moom it mën na lépp loo xam ne da koo mën a yàq ci kër gi mu yàq ko waaye loolu waxuñu ko sharia daf ne sañ na fee toog di lekk di naan di sangu di def yi nga xam ne mooy yi jaadu ba iddaam jeex mu ñibbi xaqam jooju nag su ne woon man soxlawuma ko damay dem rawatina jëkkër ji jëflanteeg moom jëflante bi mu jëflante parce que néeg ba mu dëkkoon moom it war naa xam ne li fekk idda ji jeexagul même su fa amoon bagage yu moom moom ku góor gi te ndaw see taxoon mu dugal ko fa jaaduwut mu di ko dindi li feeg du ndaw si dafa jeexal ba dem su demee mu door a jël bagage am mu des nag bagage yi nga xam ne dañ nekk daf ne ku ko moom bagage yi nekk ci néeg jigéen ji am na ci yoo xam ne moo leen moom ci lu wér yooyu mu xam ko jëkkër ji xam ko ndax bagage am yi nga xam ne ba mu fi ñëw da koo indaale woon wala mu yëkkati xaalisam jënd ko kooku kenn nattaloon yi bagage moo ko moom su fekkee jëkkër ji moo jëndoon dara may ko loo xam ne wóor na ko ne lii daf ne ko dama la koo may kooku kenn nattaloon ne lii moo ko moom am ci yoo xam ne mën nañoo jàpp ne jëkkër ji moo ko moom ndax yëfam la mu ñëwoon di ko fa denc ndax loolu it kat day am léeg-léeg mën naa suñu yéereem wala ay yëfam wala ab dencam mu ñëw denc ko ci armoire ndaw si ba jàmm rek ne beey kon duñ ne bu ko xasee fase rek lépp lu nekk ci néeg bi dañ koy jox ndaw si faaw ñu xool li waa ji moom ñu jox ko ko li jigéen ji moom ñu jox ko ko su amee nag yeneen yoo xam ne dañuy sikki sàkk ku ko war a moom loola la ñuy wax ne dañ koy nattale bépp bagage boo xam ne xam nañ ne lii bagage su jigéen la war a doon ñu xam ne loolu ndaw see ko moom bagage bu war a doon bagage bu góor ñi xam ne lii kon waa ji moo ko moom loolu mooy xeetu nattali bi ndax am na yoo xam ne ku fekk góor ak jigéen di ko xëccoo da ngay xam ne lii jigéen jaa ko moom am yoo xam ne ku fekk góor ak jigéen di ko xëccoo nga xam ne kii ku góor kaa ko moom loolu nag ba jamono yàqugul la ndax am na léegi ginnaaw jigéen ñi dañuy sol tuba yu mel ne tuba yu góor ñi mënatoo sukkandiku ci dara loo xam ne da ngay xam góor ñi di am ay jaaro yu nopp ñoom itam amatul daanaka loo xam ne mën nga caa sukkandiku pour xam lal bi bu fekkee ne dañ ko ko jëndal nga xam ne da koo jëndal may ko ko kooku moo ko moom su fekkee da ko faa indaale it moo ko moom waaye su fekkee daa ñëw fekk fab lal nag ñu ne cell noonu rek waxu ko ci dara moom it mu ñëw dëkk ca noonu rek su boobaa dañuy laaj waa ji ndax lal bi da nga ko koo may wala sab lal la bu nee sama lal la ñu bàyyi ko fab lalam ànd ak ne la gën a rafet te gën a mat na ci góor mooy ya nekkoon foofu yépp nga bàyyi ko mu yóbbaale ko su fekkee soxla na ko te bëgg ko yóbbu loolu moo gën a mat ci koo xam ne en tant que kilifa naam alhamdulilah waaw ala kulli xaal ñu ñu tàmbalee ci bu mujj bi maanaam li ñuy bañ Abdullah ibnu Mas'ud da daan woo am bis boo xam ne daf ci daan dajale ay ndongo am di leen waar ay bis bu ne mu def ko benn yoon ñu ne ko ah waaw xanaa mënoo koy def bis bu set mu ne ataxawalukum kama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yataxawaluna maxaafata saama dama koy def ndànk-ndànk comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon defe ndànk ndax ragal ragal ngeen yokkat dañoo ragal def ko ñaari yoon wala ñetti yoon mbooloo ma di teew ba mu yàgg nga gis ñuy wàññeeku ndànk-ndànk ba mu yàgg faf ñu dem seen yoon ndax léeg-léeg mu am kat ci dars yi léeg-léeg ab dars tàmbali ma sha allah tegu ci yoon lool waaye bu demee rek ab diir bu gàtt gàtt nga jekki-jekki gis ak wàññi ko di ci am te dañoo bëgg yëf yi di yokk ànd ak ne dars bi alhamdulilah ba mu tàmbalee ba léegi gisuñu ci ak wàññiku ndax du ngeen fàtte ne parcelle la tàmbale woon jaar na fi kolobaan ci xarakatul falaax jóge fa ñëw fii waaye ba léegi gisuñu ci nag lenn loo xam ne ak wàññiko te boobaa léegi mi ngi bëgg am ay at ndax quatre-vingt-dix-sept la woon ba léegi mu continué ay téere jaar na fi alhamdulilah yoo xam ne dem nañ ba jeex te wàññi ko amu ci kon ñaaw njort googu amatu ci waaye ñu jàpp ne rek lu mel nii su mënee saxin alhamdulilah lu baax lay doon lu dul nag suñ demee bi mbooloo mépp nag àndandoo nag gis ne dañ ko war a def ñaari yoon su boobaa ñu xoolaat ko ndax jamono yi nga xamee ne kolobaan lañ nekkoon boobu ñaari yoon lañ ko doon def loolu ñu bàyyi ko xel insha allah beneen ba mooy banati wax dama tàmbalee ci mujj bi waaw jëmmi dugg ci jàkka julli ñaari rakka door a toog kooku farata la kon tere googu liñ koy tere mooy tere xaraamal lay doon ndax bul jàpp bul fàtte ne foofu dafa am tere daf fee ñëw ba noppi digle jëf ji itam daf cee am am na beneen xadis boo xam ne daf ne ida daxala ahadukum al masjida wal imaamu yaxtub fal yusalli rakaatayni qabla an yajlis wal yatajawaz fihima su imaam dee xutba bi su ajjuma nga dugg noonu la xadis bi tëdd ci saxiixul buxaari de nee na bul toog lu dul da ngaa julli ñaari rakka waaye nag mën nga koo wayefal mën nga ko wayefal kon foofu daf koo digle fële mu tere safaan bi yooyu ñaar buñ dajee ci ab àtte kooku ak war rek lañ ciy déggee surtout yeneen qaraa'in yi ci am mu di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy xutba ajjuma su leyk alxatafaani dikk dugg ci jàkka ji rek gis yonente bi xutba mu daal di toog yonente bi alayhi salaatu wasallam dafa dëgg xutba bi laaj ko ndax julli nga ñaari rakka mu ne ko déedéet mu ne ko jógal julli kon ànd ak ne ma moom dañ koy tere sax mu wax foofu may na ko mu wax ndax laaj na ko julli nga mu ne ko déedéet kon dagg na ab xutba bu àjjuma ngir loolu kooku dalay wan ne luñ sopp wala luñ naan karaahatu tanzih kooku jarul di dagg xutba bu àjjuma di wax ak nit di ko waxloo moom itam kon loolu farata moo ko man man nga ne nag bu la neexee waaw nun kat leen xamoon mooy julli yi nekk farata juróom lañ kon nun mën a def ba indi ak julli goo xam ne dañuy wax ne farata la lay tontu lu mooy julli yi juróom ñoom ñooy farata yi nga xam ne dañ koo teg ci kaw loosu kenn ku nekk koo xam ne ay sartam daje na ci yow képp ku nekk mu kàllaf doon ab jullit doon nangam doon nangam kooku farata la ci yow ci lu dut yeneeni sart des nag ay julli yoo xam ne day doon farata ci nit ki su fekkee ay condition daje nañ ci moom kum dajewut ci yow kooku nekkul farata ci yow ki duggul jàkka ji kenn waxu ko ne ko na nga julli ñaari rakka ki dugg jàkka ji te bëggul a toog kenn waxu ko ne na nga julli ñaari rakka kon farata juñ tënk la lële farata la juñ joyal maanaam waajib mutlaq la kii waajib muqayyad la dañ koo taqyid ci ay shurut loolu moo ko wutale ak julli yi juróom wallahu alam salaam wa rahmatulah. waaw loolu moom tontu li bala ngaa sori wérut maanaam tontu li mooy loolu dara wéru ci ñaar yooyu nekkuñu di dund ba léegi faatu faatu nañ bi yàgg. yonent la loolu mooy li wér ci anbiyaaw bani israil ci la bokk ndax dalil yu bare bare bare bare yu koy wone bokk na ci bi ci gën a fës rek dagan gi mu dagan mu taqali ko Muusa bàyyi ko su fekkoon ne Muusa mooy yonent ba moom mu doon kenn ci mbooloo mi war koo topp kon du dagan ci moom mu ne ko hada firaaqu bayni wa baynik képp ku wax sab yonent loolu da nga dugg ci kéefër kooku mooy wane ne moom ab yonent la
noppi boobu ma sujjóot baax na léegi loolu lan laa waroon def si ñaar yooyu boobu mooy laaj bi nga si leeru de
ma ne nit fekk ma julli timis moom moo ñëw fekk si ma waaw non waxal yow baal waa ji la fekk si nga wax yow sa njuumte ba pare voilà man sama njuumte waaw mooy dama doon julli timis nit ñëw fekk ma rawee ko benn rakka Mm.
au lieu que ma toog ma rawee ko benn rakka damaa jóg ànd ak moom man jóg naa moom am na ñaar rakka yu normal rawee woon naa ko benn rakka léegi yéeg naa ci biir julli bi kii rawee waroon naa ko rawee benn rakka ci fu mu toll nii yéem na parce que dolli na maanaam benn rakka léegi ma jóg indi benn rakka indi benn rakka def sujud def baax sujud léegi lan mooy àtte ci loolu lan laa war a def lan mooy àtte ci loolu lan laa war a def ñaareelu laaj bala ngaa jàll ndax am na kenn ku xam li mu wax mu mën koo leeralaat bismillah kunta waaw Mhm. waaw maanaam mu julli ko ñeenti rakka da ngaa julli ñeenti rakka yoo xam ne da ngaa biral yépp ñett ñett yu ñett yu jëkk yépp da nga leen a biral ñeenteel bi nga yalu ko waaye fekk am na waa joo xam ne bi nga tolloo ci sa ñaareelu rakka la dugg si moom bi ngay am ñeent moom matal na moom itam kon léegi waaw waaw maanaam foofu njuumte bi mag moo fa am moo di jóg dem ci ñeent kañ nga ko fàttaliku ne ci ñeent nga nekk
dama fàttaliku boobu maa ngi ci ñett ci toog bi may toog taay laa fàttaliku ne kii rawee woon naa ko benn.
Non, non, baalu- bàyyi- bàyyil waa ji yow kay léegi waa ji ñëw moom bàyyi ko waaye yow ci sa jëmmi bopp di nga di nga kañ nga yëg ne yow mii yaa ngi dolli benn rakka bi ma toogee taay laa yëg ne dolli naa benn.
Ci sa taay ñe- Rakka laa def def toog ci taay boobu laa.
ñetti rakka yi maanaam ñeent yi kon waaw ci taay bi laa yëg ne maa ngi ci ñetti rakk. loolu ñett.
troisième bi ci nga nekk boobu ba maa ngi am ñett.
waaw bi nga yëgee dama bi ne waa ji dama ko rawee.
bi nga yëgee ne dégg rek ma wax la non ñu teelu ko léegi ki bi nga xamee ne yow yaa ngi ci sa ñetteelu rakka foofu yaa ngi taaya fekk defoon nga beneen taaya bu njëkk wala taaya bii léegi mooy sa taaya bu njëkk maanaam yow taaya woo ci sa ñaareelu rakka waaye ci sa ñetteelu rakka ci nga defee sa taaya bu njëkk foofu bi nga yëgee ne defoo taaya bu njëkk loolu du tax nga jóg pour indi beneen rakka li nga war a def foofu mooy boo taayaa ba matal sëlmalal su boobaa lan moo sikki sa julli mooy sa julli amul taaya ju njëkk su ko defee booba nag nga sujootal ko soo ko sujootalee yow sa sa jaan wàcc na ki nga xam ne moom dafa ñëwoon fekk si la kon jamono yi ngay def noonu fekk na moom ci ñaareelu rakkaam la nekk bi ngay taaya mi ngi taaya taayaam ju njëkk su fekkee da ngaa sujjóot qabla salaam moom day jóg dem du ci ànd ak yow parce que pareegut moom Euh, boo sujjóotee qabla salaam day ànd ak yow boo sujjóotee qabla salaam dafay ànd ak yow mais boo doon sujjóot ba'da salaam kon moom du du du du ci ànd ak yow ci loolu bi ngay sujjóot qabla salaam day ànd ak yow boo jógee boo sëlmale mu jóg andi beneen rakkaam mu jeex waaye yow sa njuumte bu mag mooy jóg gi nga jóg di dem ci kaw beneen indi beneen rakkaam ñeenteel ci kaw ne da ngaa deful woon taaya bu njëkk kon loolu waruloo ko woon a def. bi nga ko defee ba àggal nag léegi sa julli ab rakka yokku na ci comme que tëyoo ko kooku ziyaada rek lañ koy tudde maanaam faaw da nga koy sujootal rek nga koy mën a def waa ji àndoon ak yow nag moom dikk fekk fi ñett julli ne ñetti rakkaam yu mat sëkk dana ànd ak yow ci sujoot bi waaye ak julleem mat na amatul ñaareelu laaj mooy est-ce que jotul yéen borom xam-xam yi ngeen def ay waxtaan yu rëy pour fitna yi yeewu ci am benn kuréel jox pare rek di xeex beneen intérêt tuddee ko islam yàq dem islam ak ñun ñëpp di ko coow est-ce que jotul yu mel nii la xew ma ne bu amaati ngeen yónni ay délégation boo xam ne borom xam-xam aalam bi yëpp ci luñ ne islam bi arab saudi ngeen yónnee délégation boobu pour laaye yooyu bi ne leen lii du jihaad du islam waaw suñu baree ngeen fësal ci àdduna bi ah ñun suñuy xeex dañu ne islam la ñun nag daje nañu ne leen lii islam kon bu ngeen dem di dem xeex bu leen wax ngeen ngi dem di xeex ay jihaad ne leen ngeen ngi dem xeex ak ay comme su ko defee islam bi am maanaam ñi ko aar ñu koy protéger li koy layal. ñu bëri ko seetaan loolu rek bàyyi ko bu tëb pare rek def say tuuti duuna tuddee ko islam yàq na islam est-ce que jotul pour ngeen borom bu ngeen toog ci asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa yéen borom xam-xam yi kàddu gu xaw a rëy la waaye nun ndongo yi kenn ku nekk fa nga toll fu ne am nga fa responsabilité ndongo yi nga xam ne dañuy yëngu ci xam-xam di ci kurkuri di jéem a jàng ak di jàngale am nañ ca responsabilité njiiti réew yeeg ñi nga xam ne ñooy responsable yeeg kilifa diine yi fu faay toll fu nekk am nga responsabilité ci lépp loo xam ne da ngaa gis ne dafay yàq lislaam wala muy ñuulal ab deram war ngaa jóg raxas sa kem kàttan loolu ngay wax nag ñàkkut a am xëy na bu fekkee am na ay organisation yu bari yoo xam ne sàggane nañ mbir mi ba fitna am ñi door cee def seen i déclaration téewul nag am na ñoo xam ne surtout ñi nga xam ne ñoo féetewoo Afrique defe naa mbootaay gi gën a rëy fi mu toll te doon goog l'islam ci Afrique mooy union des ulama d'Afrique ittihaadu ulama afriqiya ñoom ba mbir ma tàmbalee ba mbir ma tàmbalee nga xam ne ñooñu jóge nañ fañ nekkoon ñëw jël nooru dëkk boobu di Mali ci lañ njëkk a def seen déclaration boo xam ne yëgle ne lii lu jaaduwut la te mbooleem organisme yi nekk ci àdduna yëpp war nañoo taxaw dénoncer loolu mu leer bayaan boobu lañ njëkk a def gannaaw bi ña nga xam ne ñoo bokk ci union boobu te nekk biir Mali jéego bu nekk def nañ ko ci réparer diggante loolu nga xam ne moo xew biñ demee ba liy xewit seen déclaration génnaat na fépp fu mu war a àgg fu nekk itam àgg na fa traduire nañ ko ci langue yu bari it fu mu war a àgg fu nekk àgg nañ ci ñu dénoncé ko ak wane ne loolu ci boppam doonut loo xam ne jihaad la boo xam ne mooy jihaad bi chariatul islam xam dari nag lu bari ci organisation yi am ci monde islamique mënoo leen a forcer yow maanaam li nga xam ne ca nga nekk di fa liggéey foofa ñoom ñoo mën a waxtaan xam mbir mi nam toll te yu mel nii li jaadu woon ci organisation yi am ci àdduna moo xam ligue islamique mondiale la wala OCI la wala feneen ñoom lu mel nii su amee pour ñu xam ci lu leer nañ ñi dañu waroon a laaj ñi nga xam ne ñoo dëkk Afrique ñoom ci seen jëm bi bopp di dund loolu te xam li xew lan la suñ leen éclairé ñoom ñu door a def seen déclaration waaye gis nañ ay déclaration ci ay organisme yu baree baree bari yoo xam ne déclaration yi ñu def njuumte la parce que dunduñu affaire bi ba xam lan la dëgg dëgg dëgg dëgg mais Union des Oulémas d'Afrique moom lañ ci man def nañ ko seen kem kàttan dox nañ ay jéego def nañ seen i déclaration yépp def nañ ko waaye teewul nag mbir mi noonu nga xam ne noonu nga ko gisee taxul it nit ñi noppi ñu ngi ciy def seen i xutba ñu ngi ciy def seen i waxtaan fu ñu waxee ku nekk ña ngi cay wax liñ man waaye fitna la joo xam ne bu xasee ñëw moom jéem a xam yan taxawaay nga ciy am rek ngay kii waaye jeexal ko yàlla moo xam lu koy jeexal xanaa rek ànd ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu jeexal ko te l'islam bañ cee loru ak jullit yi wallahu taala kon waxtu wi jot na wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain